nag ca wet ga ba tey ñu cey gis ci xatam mu njëkk ki xam ne moo di Sadio mu bu ñuy wax meilleur sportif 2022 ci ANPS moom tamit Sadio Mané jar ju am Lion di but ca noonu la ko journal bi nga xamee moom Sadio Mané nag moom tamit nekk meilleur sportif 2022 buñ sukkandiku ci ANPS ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu football tournoi UEFA A nag Sénégal Sierra Leone 4-0 daal la suñuy gaynde daan ñi nga xamante ñoo di waa Sierra Leone donc mu ne les Lions réalisent un carton plein noonu la journal bi di record yéen a kaay xamee ci suuf ga ñu cay liir mu la Guinée-Bissau en demi-finale vendredi jàppale na ba tey mbokk yi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataang yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Wii Sport mercato bi nag compliqué na ba yegg ci lool ci doomu Sénégal bi la nga xam ne moo di Bamba Dieng ndax moom dafa dal di dem fële ca yaa ngir amal fa ab toxalu maanaam dal di def transfert dem fële ca Lorient waaye ba mu yeggee accordu euh, Marseille daat moom la amul ba tax fi mu toll nii mbir yi jaxasoo lool ci diggante ki nga xam ne moo di Bamba Dieng que Marseille ak Lorient gële mu bëgg a dem mu fi rakkal Marseille visite médicale déjà effectuée loole nag diggante boobee sax mu fi goo nga xam ne moom la Marseille te gët te jotagu ci waral ba nga xam ne mënagu ñuy bàyyi benn yoon doomu Sénégal bi di Bamba Dieng ngir mu dal fay jógee trophée xamle ci xat mu njëkk ma ba tey mbokk yi jàppale nag CHAN 2022 ca quart de finale ya Lamine Camara nag nee na nous sommes très optimistes pour le reste de la compétition moom mi bokk ca ndaw nga ndaw yi crédit Pape Thiaw nga xam ne ñooy jongante CHAN 2022 bi ni mel tournoi UEFA nag ñu ne nee na les Lions balaye la Sierra Leone gannaaw bu nga xam ne suñuy gaynde am nañ ndam lu rëy 4 bi à 0 ci kanam ñi nga xamante ni ñoo di Sierra Leone ba tey Tribune Sport ñëw ci xët mu njëkk ma ñu cay gis ki nga xam ne moo di tàggat sunu ndaw yi nu mel di Pape Thiaw nag moom mi nga xam ne nag mu ñu xam ne Pape Thiaw a dirigé la séance Lamine Camara et Diouf mbokk yi jàpp leen ne nag muy séance d' entraînement kii di Sadio Mané ba tey ci mu njëkk journal bi ni mel mu ñuy xamal nag trophée Bocandé sacrant le meilleur Sadio Mané ballon d'or sénégalais pour la septième fois ci trophée Bocandé bi nga xamante ni nag mooy euh, daal di euh, firnde ki nekk le meilleur euh, fii ci euh, Sénégal mbokk yi jàpp na nekk journal bi di stade moom Alfred Gomis dañ cay gis mu tëdd jël bal ba jàpp mel ni ko war a jóg jouer waaye Alfred Gomis daal était en Bretagne noonu la ko journal bi di stade yéen kay xamle moom Alfred Gomis nag ci fàttali club mu nekkoon ci ren da ko daal di dàq te moom la sax waaye jamono ji mu ngi ci ba chan Retrouvailles Sénégal-Mauritanie dix ans après flashback d'une dissolution historique des Lions en Les souvenirs de votre indienne, je suis pour ne connaître pas une revanche, mais le ñun tamit noonu la ko fi